asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak bànneex saa suñuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions ñu ci waxtaanee li xew ci émission yi ñu ciy joxe suñu gis-gis ak sunu xalaat ginnaaw bi ñu waxee ñoom seeni xalaat ba noppi ñuy nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi waaye aussi ñu ngi nuyu sénégalais yi nekk ci bitim réew di am ci ñëpp mbégte ak kontaante di nuyu kilifa diine yi rawatina sunu sëriñ sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu équipe technique bi nga xam ni ñoom lañu àndal ci l'émission des émissions mbokk yi. tey daañu waxtaanee ay points yoo xamante ni bii points yu am solo la mu mel ni am na ñoo xam ni yëkkati nañuy kàddu keroog ba accident bi amee muy accident avion bi wax ni ministre bi bi mu ñëwee daf leen a dikk luy tolloog cent cinquante mille waaye nee nañ fi ñu mujj mooy ñu jox leen kenn ku ci nekk quarante mille francs mu mel ni. ki nga xamante ni kii moom lañuy wax tamit maam góor jazaaka yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci duo bi nga xam ne mooy duo président Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye joxe na ay xalaatam ci taxawaay bi nga xamante ni bii mooy taxawaayu Ousmane Sonko mu mel ni am na noo xam ni noonu la ko gisee danañ ko déglu mu jox ñu. ay xalaatam ay nit di wax ni faw ñi nga xamante ni bi ñooy waa taxawu dakaar ak ñi yor nguur gi juboo kon ñu ne diggante xalifa sàll ak ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Barthélemy faw juboo dal am loolu ndax lu war a mën a ne la war a nekkul lu mën a ne loolu yëpp incha allah rabbi ñu nit daan ci yëkkati sunu xalaat joxe ko ci mbokk yi e, li nga xamante ni bi moom lañuy njëkkee mooy ñi nga xamante ni ay ñu doon tukki lañ jëloon roppalaan roppalaan gi am ay jafe-jafe ci réew mi ci jamono jooju mu mel ni nekk nañ ci xat-xat waaye ki nga xamante ni kii mooy ministre bi ñëw na gisanteek ñoom yëkkati ay kàddu wax ne kat danañ leen jox kenn ku ci nekk ci ñoom li ñu wax ne dinañ leen jox cent cinquante mille waaye mujjul foofu ñu déglu leen ñu yëkkati ay kàddu ñu ñëw joxe ci sunu gis-gis je vous en prie. Quand le ministre il était il était venu à 2 heures 3 heures du matin en partant le ministre a dit qu'il va nous laisser. Euh, 150 000 par personne pour qu'on puisse acheter le premier nécessaire des habits, parce qu'on n'avait pas de bagages, on les, a, on les a, tous laissés dans l'avion, pas de bagages, pas de, pas, pas de brosse à dents ni rien. Il va laisser 150 000 francs chacun, comme, euh, comme lui par exemple son don à lui, mhm. on va, on va s'acheter des, mhm. on va s'acheter des, des, nécessaires. Et il, le ministre il est parti, machallah. Je pense qu'il a laissé l'argent. Et nous, une fois qu'on qu nous faisait monter dans le bus pour venir à, euh, à l'hôtel, on nous remet 40 000 francs CFA. Ah oui Ouais, après l'annonce du ministre. On n'a pas compris, on a juste pris l'argent et euh, je me rappelle plus du monsieur, mais on était, c'est lorsqu'on montait, il nous prenait le, nom, etc. On est monté. Ah ben, une fois dans le bus, on a demandé, le ministre il a dit telle somme, pourquoi c'est telle somme qu'on a Personne nous a répondu. Il nous a donné 40 000 Bon, nous, a attendu, le ministre disait eh, Mais quand on est en montant dans le bus pour venir à l'hôtel, on, on, donne chacun 40 000, 40 000 francs CFA. Et vous allez être obligé de quitter euh, aujourd'hui Oui, bon, aujourd'hui, on nous a dit ici que celui qui ne quitte pas aujourd'hui, on, on, prend plus charge de quelqu'un ici. Non, c'est 40 000, ah, oui. oui, 40 000, c'est ça. Ils ont donné ça aux passagers tous, tu comprends euh, il euh, y, a, y a même une fille qui a traumatisé avec nous, elle criait, elle, tout ça, elle est là. Euh, personne n'a venu le, le voir il a diabétique. jërëjëf macha allah mu nekk lu am solo euh, muy loo xamante ni bi ay nit yëkkati nañ ay kàddu wax ni ministre bi bi mu ñëwee def leen a dig ne dinañ jox kenn ku ci nekk cent cinquante mille muy kàddu yoo xam ni ñi ko wax ñooy ñi nga xam ni ñoo doon tukki am jafe-jafe maanaam ba yaakaaroon ni. leneen mën na cee xew ndax ministre bi moo ko wax wa ilaa ñoom ñoo dégg loo xam ni peut-être nekkul lu am parce que bu leen ni tamit ñu nekk ci traumatisme lañ ci situation boo xamante ni bi situation bu doy waar la mais su fekkente ni bi ministre bi moo ko wax man damay wax ni El Malick euh, war na leera parce que bu fekkente ni dafa wax ñii ne dina leen jox nàngam euh, ba noppi wëlbatiku mu am intermédiaire ci diggante bi donc kooku ñëw jox leen li nga xamante ne bi mooy quarante mille ndax loolu lu ministre préparer woon la ne lii lañ leen di jox wala déedéet am ku nekk ci diggante bi ku doxalee neneen loolu lu ñu war a lijjanti la parce que yu mel noonu moom nekkul loo xamante ni bi rafet na parce que bu fekkente ni ministre bi daf leen a wax donc amul kenn koo xam ne war nga nekk ci diggante bi koo xam ni war nga doxalee neneen bu fekkente ni bi nag ministre bi waxu ko waaye ñoom ñoo ko dégg loolu tamit ba tey xam nga day soxla li nga xamante ni bii mooy leeral parce que man bi ma njëkkee yam ci vidéo bi dama ne ah, lii de doy na waar parce jàpp naa ni ministre bi bu leen ko waxee moom lam leen wax dana ko def léegi nag ndax loolu la leen wax loolu question la boo xamante ni bi bi parce que ay nit rek ñoom ñoo taxaw wax ne lii lañ ñu wax waaye man déggaguma ba léegi fu ministre bi weddee donc dañu def euh, message bi pour ki nga xamante ni kii mooy le ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk muy El bu fekkante ni bi déggutoon lii ñu dégtal ko ko ngir mu mën a xam exactement yëf yi ni nga xamante ni bi noonu la demee bu dee da koo defloo woon ay nit nit ña ñëw def neneen nu dut noonu ngir ñu jàllale ko tamit aussi ngir moom mu yëg ko xam ni ña mu defloo woon mission kat la mu waxoon ak lañ ko defal wuute na bu fekkee ni yëf yi noonu la bu fekkente ni bi nag demeewut noonu ñii ñoom ñoo bëgg a expliquer leneen loo xam ne moom waxu ko aussi tamit ñi nga xam ne yor nañ communication ñu génn leeral parce que loolu dafa am solo trop parce que loolu dafa am solo ci li nga xamante ni bi mooy yëf yi parce que euh, lu leer moom dafa baax donc loolu dañ ko doon def uniquement pour euh, leeralal ki nga xam ni mooy El Malick bu fekkente ni yëgagut lu ni mel ngir mu jaaree fa yëg ko parce que loolu c'est très di ñaanal ñi nga xamante ni bii peut-être am nañ ci ay gaañu gaañu sunu borom yëkkati leen ñu delluwaat ci seen yitte tey ñaan lu mel nii bu fi amati nekk na loo xamante ni bii vraiment euh, metti na donc aussi tamit euh, ñi nga xamante ni bii tey euh, ñoom la yëf yi ñu dund ko dafa nekk loo xam ne accident. dugg ci avion ñu ne am na jafe-jafe tiitaange gi eh, day nekk loo xamante ni bi lu doy waar la mbokk yi ak xarit yi maam góor jazaaka dafa yëkkati ay kàddu muy ay gis-gisam ki xalaatam ci ab émission ñu teewlu kàddu yi nga xam ni moom la maam góor jazaaka yëkkati soog a delsi ci waxtaan wi je vous d'accord mais na fexe ba bul jël avion Sénégal. l' argent du contribuable bu Sénégal waru ci waru ci ànd te même bu dul loolu tey ay nit yoo xam ne ay coup d'état lañ def tey boo demee Mali amul benn autorité malien boo xam ne sa ngaa cent wala deux cent kilomètres biir Mali soo ko defee euh, jihadis yi téye la ñëw nga nekk ci dëkk boo xam ne yéen kaso ngeen jóge dañ leen téye woon mais ñu jël leen fal leen démocratiquement lu musul am ci Afrique ngeen gagné à cinquante pour cent justice bi ngeen daan xas ñoo leen taxaw conseil constitutionnel taxaw ni président bi dañuy organiser élection yi lépp jaar ci yoon ba tey yéen ngeen mën a ñëw nekk au pouvoir tey loolu soo ko màggalul comme ni ko président Diomaye defee waruloo dem di seeti ay nit yoo xam ni ay coup d'état la ñu def ci seen i dëkk tey liberté d'expression amu fa amul démocratie donc man je vois mal quelqu'un boo xam ni tey daf ni moom mooy premier ministre Sénégal bëgg a jëmee Sénégal ci kaam dem di seeti ay nit yoo xam ni coup d'état lañ def pour jël réew mi d'état tekki ci wolof mooy wor askan. jërëjëf maam de wax na loo xam ni man xawma loolu ban français la ak ban olof la nee na coup li muy tekk ci wolof mooy wor askan wi. nee na loolu la coup di tekk ci wolof man nag ñi nga xam ni ñooñ la wax ni ñoo coup ñooñu ba ñu coup d'étatwee askan wa ñoo génn tàccu leen kon ña nga xam ni ñoom lañu coup ñooñu ñoo waroon askan wi waaye du ñi ko def boo demee Guinée ba ñu ko amalee ña nga xam ne ñooy askan wi ñoo génn di tàccu Dumbuya boo demee Mali ña nga xamante ni bi ba ñu ko defee askan wa ñoo génn di tàccu boo demee Burkina ba mu amee askan wa ñoo génn di tàccu boo demee Niger. ba mu amee askan wa ñoo génn di tàccu balaa ngay xarab day war a fekk nga xam parce que maam góor dafa mel ni dafa xamul ni président Bassirou Diomaye jaxaar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ba président Bassirou Diomaye Faye askan wi voteel ko comme ni mu ko waxee muy cinquante quatre pour cent virgule nangam nangam bañ ko voteelee ba muy prêter serment dafa def ay invitation invité ñooñu nga xamante ni bii tey ñoom ngay wax ni coup d'état moo leen fal defe naa ni gis nga colonel Mamadi Doumbouya ca prestation serment wu président Bassirou Diomaye Faye defe naa ni dégg nga ka nga xam ni moo fa représenté woon président Assimi goyta gis nga it ka nga xam ni moo fa représenté woon président Burkina di Ibrahima Traoré et cetera dégg nga ñu wax leen tudd seeni tur ñi nga xam ni ñoo leen fa représenté woon maam gooy maam maam maam góor buruxlu boo koy def dangay ngay muus yeewu tuuti pour mën a buruxlu dugg mais ni ngay buruxloo dafa àndut ak intelligence képp koo xam ni yaa ngi buruxlu ci diggante ngir bëgg a dugg jàpp ni damay clin d'œil président Diomaye xarab le premier ministre Ousmane Sonko mënoo dugg loolu dama bëgg mu leer ci seen bopp yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a dugg di buruxlu président Diomaye ak le premier ministre Sonko li nga xam ni moom lañ doon wax mburoog soow boo yeboo nga xam ni moom lañ te bii nag bu dëggu la lépp loo xamante ni le président Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko ma ngi koy def boo yeboo mu biir la ni yëgoo nañ ca kon seen yii ngeen di def bu yeboo ngeen teel koo teg ci suuf te xam ni du jàll daan na jàll nag ci système bi ngeen daan def jamonoy politiciens yu njëkk ya ñi nga xam ne ay politiciens professionnels lañ nga xam ne dañuy ànd ak nit te buñ sañoon ki ñu àndal na dee tey ñoom ñu continuer gën a mën a dund jamono yooyu loolu doon na dox mais bii doxut ñii fa ñu àndee du tey dañoo ànd ba dara du dara ba tey dara di dara kon jàpp naa ni tuuti ngeen ci xajamal bi ànd te nii ngeen koy defee dafa àndut xel àndut xalaat donc tegaat leen seeni mbir ci suuf te xam ne ni ngeen daan duggee caabi ji bii yoon bu ngeen bëggee dugg dafa am beneen façon comportement boo xam ne moom ngeen di ame muy jub jubal jubbantiku bu ngeen ko deful mënu leen a dugg façon bii ngeen di jaar di fëgg port yi dama leen di dimbali rek porte bi ngeen di fëgg du ubbeeku parce que ni ngeen koy fëggee kenn du leen ubbil mënu leen wax ni da ngeen a bëgg la président Diomaye bañ ki nga xamante ni ki mooy le premier ministre Ousmane Sonko dafa mel ni da ngeen a fàtte bi président Diomaye di wax ni président Sonko ngi nii te boobu boppam lay wax daal di ne. ki nga xamante ni kii mooy la candidat sonkoo ngi nii mu ne moom mooy la kandidaa Sonko daldi di ne le candidat Jomaay ma ngay dem te boobu Ousmane Sonko lay joxoñ kon Basirooy Sonko Sonko mooy Basiru fekk mënoo koo accepter boo yeboo nga yëg ni sa tuub nangu luñ la ko kon boo yeboo nga accepter loolu ak lu ngeen mën a bañ bañ usmaan sonk bunt bi moom ngir fëgg ko le président Diomaye wuyu la faw ngeen dëggal ni Ousmane mii ku baax la bu ngeen ko mënul nag bu yeboo ngeen bàyyi burxulu bi te xam ni mënta jàll ñaar ñii boo yeboo ngeen yëg ni duñu ñaar kenn lañ loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg defe naa ni fii nga bëgg a dugg baaxul mbokk yi ak xarit yi ñu ànd déglu am na ku ne faw ñi nga xamante ni bii ñooy ña àndoon démb faw ñu àndaat parce que loolu mënul jàkk ñu déglu te ñëw parce que ñun dañ nekkoon Yewwi tey je pense que Yewwi tey aussi waroon nañ def benn dëkk Barthélémy Diaz moo fi toogoon ne su bépp candidat bu Yewwi fal dem deuxième tour dañ koy jàppale da l'autre côté on n'a pas entendu yàlla def ñoom ñu jàll au premier tour mais je pense que fekkee Yewwi esprit yi bu mu ñu doon doxee waroon nañ mën a booloowaat parce que c'est l'intérêt du Sénégal li nga xam tey président Macky Sall réussir na ko avec Tanor Dieng Feu Tanor avec Moustapha Niass ñu ñëw gunge ko ba mu liggéey quoi qu'il en soit président Macky Sall sur le bilan immatériel lañ ko mën a sikk dara mais sur le bilan bilan infrastructure wax dëgg am na jéego yu bëri donc tey on doit pouvoir se retrouver pour l'intérêt de ce pays. mais boo leen retrouver xanaa yéen na kon da ngeen di ranger. Hmm? candidature Khalifa neewoon na Khalifa jeexalagul. waaw. parce que mm. boo leen nekkee ci biir mënu leen di xeex ak ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci biir non Ablaye Wade lu mu fi def chaque fois da doon bokk gouvernement si wala opposition génn <laughs> bokkul non non non xam nga loolu aussi suñ fa toogee dañuy liggéey ak ñoom suñu gis à la des élections à la veille sortir parce que aussi loolu c'est la première oh, fois muy am Sénégal donc bref euh, ñun ragaluñu bokk liggéey pour l'intérêt de ce pays xam nga lu ñaaw ñu ne yëf yi nga gis bokkoo ci nga bu ci sànni suuf ce n'est pas parce que ñun faluwuñu te là aussi j'aime bien rappeler le président Khalifa Sall bi mu demee Matam en tournée mottal yéene def ne nguur dinaa def dinaa xeex dinaa dem fu nekk mais yàllaa koy joxe duma ci saalit duma ci wax lu ñaaw donc ku yàlla jox dinaa xam kooku la suma ma euh, laajee sama xam-xam su ma jàppale ko euh, euh. donc ñu jërëjëf xam nga Eh, Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall man damay wax ni xalifa eh, su doon moom moom kese la peut-être que nii yëf yi deme nii sax mën na ko bañ a deme Khalifa mënoon na nekk koo xamante ni tey ànd ba bu fekkonte ni bii nekk na ànd bu wér. Eh, du ma ne mais mënoon na nekk place bi nga xamante ni bi tey moom la Ousmane Sonko tànnoon mu nekk Habib Sy mënoon na nekk sax ci place boobu mais dafa am doxalin boo xamante ni bi ñoom moom lañ doxal ci doxalin boo xamante ni doxalin bu doy waar la maanaam dañoo dem ba ci biir ñoom ñu wane ñooy ñan loolu nag daf leen a perdre lu bari parce que bi ñu wanee ñooy ñan dañ ci perdre lu baree bari bari bari te jàpp naa ni pour ñu yegg si waat dana jafe lool lool lool lool que dañoo sori lool ci kàmb gi parce que fi leen nit ñi féetale woon la ndax tey jii ñoom ñu wëlbatikuwaat juboo ak ki nga xamante ni kii mooy parti Pastef est-ce que mën naa yomb est-ce que tey jii bu fekkonte ni bii tey président Diomaye wala premier ministre Ousmane Sonko bëggaatoon nañ loolu est-ce que askan wi dinañ leen ko pardonner c'est que mbir mi doona tut ñoom kese ak ñi nga xamante ni bii tey ñooy euh, nekkatul mbirum Ousmane Sonko ak mbirum euh, président Diomaye déedéet. mbir mi dafa gën a sori loolu c'est que boo ko xoolee ci angle boobu jàpp ni yëf yi lii la rek da ngay juum parce que yëf yi gën na sori ñoom ni ñu kii doon wax sànq ni mu ko yaakaare Barthélemy dafa taxaw fëgg dënnam am loo xamante ni bii wax na ko loolu nag dafa naqari sénégalais yu bare bare bare bare parce que sénégalais yi dañu jàpp ni fi Barthélemy Dias nekk tey Ousmane sonkoo ko fa teg ba noppi mu wëlbatiku doxalee noo xamante ni bii tey xol yi da cee naqari lool lool lool moo tax gëwuma ni Ousmane Sonko Sénégalais yi bëgg nañ ko trop mais gëwuma ni bu jëlee risque euh, delluwaat ak Barth jàpp ma ni sénégalais yi danañ ko ci topp loolu moom jàpp ma ci parce que bi mu ànd ak baat yi ñu bari dañ ko nangu woon mais dañ ne eh, ñii warut a ànd ak ñoom loolu mooy li nga xam ne moom la sénégalais yëpp wax tey jii man ni ma gisee woon ni Ousmane Sonko ku mu tànn nga jàll noonu laa gisee ni tey Ousmane Sonko bu fekkente ni delloosi na ne day tàllal loxo ñoom Bart gëwuma ni senegale yi dinañ ko ko baal. parce que mbir mi dafa dem ba mujj gi nekkatut mbiru Ousmane Sonko ak ñoom baat mais mujj gi dafa nekk sénégalais bu ne dafa jël yëf yi def ko yëfi boppam bépp sénégalais boo xamante ni bii voté nga ñoom nañ xam ni li leen war rek mooy ñu jéem a dem conquériraat ko xolu sénégalais yi ci beneen anam mais pas pour jaaraat ko fi ñu ko waroon a jaar pour ñëw bokk naan ña ngay nguuru loolu gëw ma ne sénégalais yi dinañ ko baal. bu fekkente bi Ousmane Sonko tànte woon na tànte na di def loolu ngir dimbali leen gëw ma ni sénégalais dinañ ko ko baal parce que sénégalais bu nekk dafa am problème personnel ak euh, Barthélemy gars yi de gars yi wote ñi voteel Ousmane Sonko ñi voteel président Diomaye ba mu nekk président de la République ñooñu dañu am problème personnel ak Barth te loolu dañ ko ko bëgg won dañ ko ko bëgg wan il suffit ay élection am ñu wan ko Barth parce que jàpp nañ ni bii moom dañu fal ki nga xamante ni ki moom lañ fal mais dafa am ay élection yu ñëw te sénégalais yi dañu fas yéene wan Barth ne lim leen def naqari na leen du woon Ousmane Sonko la ko def sénégalais yi la ko def parce que dafa am ci benn élan bu sénégalais yi nekkoon mu am doxalin bu mu ci doxalee sénégalais bu nekk dafa jël mbir mi def ko yëfi boppam. loolu mooy li nga xam ni mooy li am mbokk yi ak xarit yi ñuy am mbégte di am kontaante di gërëm ñi nga xamante bi ñoom la ñu àndaloon ci l'émission des émissions ñuy joxante dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.